sëriñ bi suñ jotaayu tey bii mun naa wax ne jotaay bu màgg la ci jotaay yi nga xam ne yàlla mi ñu koy wërsëgalee. ki nga xam ne moo liggéeyoon bay ñu jagleel ko safar maa ngi wax ne képp koo xam ne xidma nga ko wala xeeñtu nga ko wala bëggal nga ko ak yiw sax mën ngaa jotal sa bopp yu woowu ndax góor yàlla boo xam ne liggéey na. ba ñëpp nangu na liggéey na bu ñu yàlla wërsëgalee deretam wala sax doomam nekk ci suñ biir ànd ak ñun mooy wax toujours ne li yàlla wërsëgalee raxma raxma rek la ko yàlla wërsëgalee ci kaw Kaolack loolu la yàlla dogal li yàlla may raxma ma raxma en tant que Mouhamed Ndiaye raxma en tant mbooloo laay wax euh, euh, ñun la ko yàlla may loolu la yàlla dogal euh, mi ngi mel ni rek euh, borom safar ci ayaamu safar boo bañee itam boo tëddee sa kër da nga dégg da nga gis kenn mënu ci dara loolu mooy raxma lii ko yàlla wërsëgalee tey ci ay dereti leer ñu nekk ci biir raxma dama jàpp ni lépp luñ song war nañ ko mun a daan ci te nañ ko daan Mbàkke maa ngi am kontaan bu rëy ak mboole seen ñi ànd ak ñëpp di wax ne duñ dañ mukk di am mbégte duñ dañ mukk di kontaan duñ dañ mukk di sentir suñu bopp ci yow ci heure buñ la gisee ak buñ la gisut sa nekk ci ñun ak sa nekk ci ànd ak ñun ci jiite ci suñu mbooloo mbégte la waaye leer la waaye ndimbal la xam nga deret yoo xam ne fu mu jige ci sëriñ Moussa mu jige ci sëriñ Bachir jige ci Ahmad ba càllante gi sorewut baay ak maam rek a fi dox kon Mbàkke du ñu def lu may sant yàlla di ñaan yàlla sa barke maam sa barke bàyyi yal na dotteeku ci sa kaw di ñaan yàlla nga yàgg a nekk suñu sag yàlla nga yàlla nekk nekk suñu wétal yàlla nga yàgg a nekk suñu ndimbal waaye maa ngi ñaan yàlla déwén ci màggal incha allah yàlla may ñun ñu fi teew nii yàlla bu fi kenn manki yàlla bu fi kenn am benn jaaxle yàlla bu fi am benn njàqare ku fi am ci loo nekk ku nekk yàlla ak borom bés bi mën na ko parce que liggéeyal na yàlla lu tax buñ ko ñaanee mu may ñu ñu ngi def tawasul ci moom pour yàlla dimbale suñ mbooloo yàlla dimbale mbooleem raxma moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam jigéen la moo xam góor la. président Mun Ndiaye sëriñ baa ngi lay nuyu te di la ziar. maa ngi lay delloo nuyoo. nee mi ngi lay delloo nuyoo. nee sa combat yi nga wax ne moom nga ànd ak sëriñ bi kombaa ko te kenn mënu ko ci. noonu la sëriñ bi mën ay wax ne lépp lu mu xew la it kenn mënu la ca. ndax jëf. seede rek mooy boroom ne kon boo fi defee lu baax su mbooloo teewee ne war nañ koo biral ba mu leer ñëppit te yàlla rek tax ne li ngay séq ak moom day ci biirum néeg moo ëpp li ngay séq ak moom ci biti ne lii nag moom moo ko sàkk woon sax ca at mu njëkk ma mooy la dañuy daje politique kon soo fi ñëwee nan indi rajo yi di ko wax ca kaw ne lii day moo ko sàkk woon ci yow nee na nga ko daan defee naka jekk ci mboolem bisu it yépp wala xew-xewi xew boppam ne noonu rek nga ko bëggoon di defee ne mu leeral ñépp ne lii ngay def defoo ko ngir àdduna defoo ko ngir lenn sëriñ bi moo sàkk woon lii nga koy defee nii Kaolack gépp ak ay mbokkam ay jegeñaaleem xam li ngay daj ci sëriñ bi di la ñaanal yàlla nag ci ki tax nga wormaal ko muy sëñ Bamba sëriñ baa ngi la ciy ñaan yàlla baax lii suñ kanam yàlla na weesu te yàlla dàq lii nu weesu lépp bi jaay rasulullah alayhi salaatu wasalaam barkeb alxuraan